Sami you mo daka tu daka de ko. Sena ga le daka tu daka de ko. Ye li ga daka tu daka to. Mune khane. Daka ti daka tu daka de ko mune. Che di mune. Daka sa ni na na na. Ye ka sa ni na na na. Daka sa ni na. Kuna na daka sa ni na. li ngeen bëgg yàlla na yàlla defal loolu leen amin yàlla nañ ko defal ngeen amin yéen ñëpp yàlla yàlla bi seen bund tóor rek ay te ñu noonu léegi mooy man sax daa tul daal moo tax ah daa sul woon daal tul daal ngay mën a mas waaw moo daal ko daal lay mas ay te léegi dañuy def comédie musicale wàññi nekk bi tuuti ah mën na nekk yéen ñëpp yéen a rëm bi dama yéen ñëpp rëm rëm bi tam rëm rëm bi tam ayca yéen a koy wax dégg ma nag ci kawam waxaat leen këri ma ponde këri mi na ponde këri mi na ponde pira ponde pina ponde këri mi na ponde kangani pina ponde këri mi na ponde pira ponde pina ponde Sakani kirapatim Sapan pinapatim Leke senyang katak Rendam bidang Dia kemadara rendam bidang Kita wakau di rendam bidang Wudi paning Paning paning Wadi bisa paning pina paning pina paning Wadi nina paning Kakani pina patang Nene kumbu mukana, ane kila katika tim, matila katila, katila kusila, kusila, kusila, kusila, kusila, matila, matila, matila, matila, matila katila. Uli na bazi kambu, bana bazi kambu, uli na bazi pina bazi pina bazi, kumbu mita. Umi agaram tumbita, dengu madaram tumbita. Priyanka, Priyanka, Priyanka, Priyanka, Priyanka, Priyanka, Priyanka, Priyanka, Priyanka, Pani, Priyanka, Pani, Pani. And the lady, anyone that is a fact, men you had. Huh? Wow. ndeysaan ndeysaan ndeysaan macha allah ndeysaan ndeysaan ñu ngi ñëw baax léegi comme ñu ne ci ginnaaw police dañoo xaw a bari du dëgg te ñu dugg ci nag yoo xam ci cin dañ leen bàyyi ñu ñëw def seen spectacle mooy li gën a logique du dëgg parce que ñun ñëpp luñ fee def luñ ci mësuloon def ci am def nañ ko defati defati defati ñoo xam ne suñuy rakk lañ ne suñu gannaaw lañ nekk suñu ñëwee yoon la bàyyi la def seen seen mais dañuy jël ko ci côté nga xam moom la tey di nit bu disponible ko soutenir ko gunge ko ko mbir mi fan la ak nan la ak naka la ndax lu jafe def ku décroché ay comédiens yu bëree bëri Cafka Jean Michel Xaali ah ay ndaanaan yoo xam ne yaa ngi jëlee ba Ndakaaru ah indi leen ba fii loolu lu jafe la li na day rafet ngeen soutenir ko gën koo jàppale ndax bëgg na te yàgg na ci nekk te xam na ni mu koy def lépp da yàlla am na lu ko tuddee muy koo xam ne du def lu ñu yëgul du waxtaan ak ñun lépp lu muy def daf ñu laaj suñu avis kon lii ngeen am fii muy saal bi ku ne mën na fee ñëw te mën na fee indi yéen a ngi koy jàppale ay te neena na addiya tax waaw loolu dégg naa loolu ah ah mu ne ngeen cee jàpp ah yéen may wax ah waaw kon addiya tax bi paa bi ah ñaar ci mu nee na ñaar mu ne ngeen cee jàpp si ginnaaw ñëw rek man noonu laa ko bëggee ay te legi pa bi pa ala mbay dama neex baat ba ma lay day ins mais kat la mais yalla dafa dogal mu tap ci digg bopp bi mu taabee xale ko bi dajé lo ne ko dafa bëggoon nga jàng suñu jàng mu ne mën ma mu ne man ma kaa jàng dama taab bu fekkante ne 200000 francs mille franc la doon fayeeku keroog koy fay ne ko un million huit cent mille ngir mu jàng jàng ah kon ñu def 500000 cent jàngal ñu xool ko mu xool ko cin li ñetti fan mi ngi dëpp mu aju ma ko yëg ne mu jàng ma tas doom ji góor ji la dox ma sadik jàng jàng yi sa xaar sol aw di doon soixante dix-huit personnes kenn ku nekk sol tuubalaan topp ko tàpp bi fees dell comme nii dix milliards neuf millions quatre cent quarante ma ah non Dakar la woon mais ci